17 mars 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1892 tests réalisés, 192 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 56 cas contacts suivi par nos services. Aucun n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres et 136 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et comme suit. la région de Dakar, nous avons 69 cas dont 9 à Dakar Plateau, 6 à Wakam Parcelles Assainies Keur Grand Mbao Thiaroye et Pikine 2 à la Gueule Tapée Mariste Dieuppeul Liberté 2 Ouest Foire HLM Grand Yoff et Zac Mbao 1 à la Médina Colobane Centenaire Bopp Fann Résidence Niary Mermoz

Kaolack et Somone un à Kanel Khombol Pout Saly Ngaparou Mbacké Mont-Rolland Salémata Tivaouane et Ranérou 283 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 42 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation 9 décès ont été enregistrés ce mardi 16 mars 2021 l'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles est jugé stable. À ce jour, 37 254 cas ont été déclarés positifs, dont 33 326 guéris, 990 décédés et donc 2 937 patients sous traitement. ministère la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom fukk ak ñaari test yi ñu def téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom fukk ak juróom benn cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yoro doomu jàngoro ji am nañ amuñ ci benn ka importé mooy maanaam ku jóge bitim réew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 am nañ ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaar yu tëddee nii ñaar fukk ak ñett ci ci Thiès benn ci Kédougou ak Mbour ñeent ci Kébémer ñett ci Louga Kolda Malicounda ak saint ñaar ci Mbirkilaan Kaolack ak Somone benn ci Kanel Xombol Pout Saly Ngaparou Mbacké Morolan Salemata Tivaouane ak Ranérou ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett si malade yi entré woon hôpital ak ñu toppoon ci biir kër yi wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee ñeent fukk ak ñaari malade ñoo nekk réanimation juróom-ñeenti malade ñoo ñàkk seen bakkan bu démb talaata fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak malade yi topp ci biir kër yi ñu ngi am tànn ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba Sénégal wëññi na